الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغالي بفروض وسنن mbokki salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen ñi sibul seen site internet bi di 24 actu comme bi nga xam euh, kenn kenn ku nekk xam na ko comme ni ñu leen ko waxee woon loo xam ne rek mën na lënt na leen wala ump na leen ci diina ji dinañ leen ko fas yéene gëstul fas yéene ko ànd ak ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam yi nekk tamit ci réew mi waaye tamit nekk tamit ci dëkk bu sell bi di Touba ngir ñu leeral leen leen ko ak anam bi nga xam ne moom la gën a yaatoo tey nag gëstu diina ji am am gan gu ma gan yaakaar naa buñ ko gisee ñu bari def naa ne dootuñ leen ko présentel suñu gan tey nekk ki nga xam ne moom mooy imam Assane Diouf nekk ci fi xam ne moom mooy Al Azhar bu ndaam waaye tamit nekk imam di borom xam-xam bu ñëpp ràññee xam na avant ñuy dikk ci li nga xam ne moom mooy suñu temu tay bi ñu bàyyi suñu gan di sëriñ imam Assane Diouf mu daal di nuyoo imam ma bàyyi la nga nuyoo ñi nga xam ne ñoom ñoo lay seetaan ci site internet bi di 24actu alhamdulilahi rabbil alamin waa 24 actu bu baax mboolem ñuy topp 24 actu maa ngi leen di nuyu di leen ziara di rafet lu baax baax seen liggéey soxna asu di leen ndokkeel itam ci weeru koor wi di leen ñaanal yàlla nangul nu sàmm ñu aar ñu te musal nu ci mbas mi xew ci réew mi ak mboolem feebar yi ci barkeb sëriñ bi ñi nga xam ne yàlla dogal na it ñu wàcc ci yàlla yàlla yërëm te jéggal leen ci barkeb bi jërëjëf euh, imam ci nuyoo bu am solo boobu waaye tamit nuyoo bu mat boobu ak nuyoo bu matale boobu tey nag euh, comme ni ñu leen ko waxee woon sànq ni ñu leen ko junjee woon ci bopp jotaay bi euh, suñu temu tey nekk li nga xam ne moom mooy yàqu-yàqu jikko yi ak tolluwaay bi tey mooy suñu tem ñu fas yéene ko faram ànd ko ak imam Assane Diouf imam tey suñu tem nekk li nga xam ne mooy yàqu-yàqu jikko yi ak tolluwaay bi ci jamono ji imam loolu ban gis-gis nga ci am. jërëjëf soxna Asou jamono yi ñu toll. ak euh, mujjug jamono lañ toll mujjug jamono nag buñ ko waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne bu agsee yàqu jamono dana am ndax buñ demee ba nga xam ne euh, respect amatul mooy mag euh, yërëmatul xale gone it respecteetul mag boo dee xool internet bi te ak di déglu information yi da ngay dégg loo xam ne wax dëgg yàlla daawoo ko dégg ci bu njëkk mooy diw rey na diw diw def na nàngam diw nga xam ne yoo xam ne nit as ak jullit daana ko rus léegi wax dëgg yàlla doomi jullit yi yu bari ci ñoom ñoo koy def di def yoo xam ne sax xel mësu koo xalaat waxuma la yi ëpp nga xam ne tax na yàlla alak aw xet lu mel ni ngóor jigéen lu mel ni euh, di euh, pédophile ak yu bare bare bari ci ay bàkkaar yoo xam ne ak bon bon yoo xam ne ñun suñuy valeur sax ñun nga xam ne der bu ñuul bu dee wolof bi wala séeréer bi wala pulaar bi bu njëkk donte lislaam sax aayowuñu maanaam xamuñu ko lislaam sax dañ ko doon bañ euh, jom ngor valeur yooyu nga xam ne wax dëgg yàlla yàgg ci nit ku ñuul dangay dem ba daatu amatul loolu nag yàqute koo xam ne yaakaar naa ñëpp seetlu nañ ko soo nekkee sa kër gis ko boo demee ci kër bari na ci kër yoo xam ne dañ daan yaakaar ci ñoom ak mbaax soo demee da nga fa fekk loo xam ne bu dul ñëpp it da nga fekk loo xam ne ah, da nga naan lii nu mu mën a demee nii nga xam ne daana dugg na fu ne daanaka mën nga wax ne daanaka ab réseau boo xam ne foo dem da nga fa fekk dara boo génnee ci mbedd mi gis ko boo xoolee ci télé yi gis ko foo seetlu gis ko boo demee ci marché yi boo demee sax ba ci ah, barabu liggéeyukaay yi barabu ah, fajukaay yi barabu sax jàngukaay yi ngay dem ba di ci gis yoo xam ne nga xam ne loolu moom mooy yàqute gu daj kàpp àdduna fépp loolu soxna su yaakaar naa ñëpp seetlu nañ ko loolu nag xëy na bu ñëwee ci li ko waral des na ci dugg xëy na. Mm. jërëjëf Imam Assane ci leeral yu am solo yooyu comme ni nga ko waxee rek sa biir kàddu muy jom ak ngor ak ñàkk respecte doomu aadama yi nga xam ne mën nañ ne ndaw yi nemmeeku nañ ko jamono ji ñu koy def oustaz ñu bëggoon a xam euh, wala sax imam xam naa ñaar yëpp mën nañ ne benn la wante imam ñu bëggoon a xam lan mooy sabab bi ak euh, man ci ñan lañ mën ne ci ñoom la jóge euh, sabab bi bari waaw naan per euh, li responsabilité partagée lay doon mm-hmm. am na ci loo xam ne ñàkk yar la mooy parents yi day mel dañoo bàyyi seen responsabilité bi leen yàlla gàlloon mm-hmm. yaratuñu naan njabootu kanaara mm-hmm. njabootu kanaara mooy da ngay jiital sa njaboot mais buñ duggee ba dox ci dugg ci kàmb nag nooy def nga dem ba leen fa wala nga dugg ànd ak ñoom kon loolu yaakaar naa ne daw ay responsabilité jaru ko woon am na ci loo xam ne ñàkk la naam nit xëy na mënut boppam na mu war a mëne boppam am na ci fu ay doomu du toll dootu leen mën a gérer ndax comme yoru leen yorut ay jigéenam ay soxnaam yorut këram vraiment am na ci yoo xam ne it euh, du du mën a nekk am loo xam ne xëy na ci biti la jóge mooy télé yi yi nga xam ne xëy na du ñëpp waaye télévision yi nga xam ne tey la ñuy teg vraiment bokkut ak suñuy réalité bokkut ak suñuy kii ndax da ngay seetaan loo xam ne gis nit wax doom doomam ne ko waxoo dëgg ay ay ay wor ay nàngam yooyu itam daa uh, jeexital na lool ci ñun beneen du mooy internet nga xam internet lu ne ma fa internet baaxut bonut paaka ñaari boor la mën naa dagg mën naa dagge mm-hmm. kenn du wax ne internet baax na kenn du wax ne bon na mm-hmm. ndax ku ci bëgg lu baax mën nga caa jëriñ waaye dafa bari loo xam ne ak xale yi yeewuñ leen ñaareel ba itam mooy njàngale mi Euh, ak yar bi xam nga tey bu fekkee ñi daan yare ak di jàngale comportement yi ñu war a am amuñu ko wala ñu bari ci ñoom ndax euh, généraliser baaxut mm. waaye daal bari na ñoo xam ne tey ñoo war a yare waaye ñoom ci seen bopp dañoo dañoo aajoo ko leen dolli ab yar mm-hmm. ñooñu itam jafe-jafe la yu yu yu yu mag a mag a mag a mag mm-hmm. beneen bi itam boo yaree sa njaboot sa biir kër boo génnee ci mbedd mi mbedd mi buñ ko defarut soo yaree sa doom Euh, euh, bu amee ay àndandoo di ñu muy jàngandool ñu muy jaxasool ma ngi ca euh, réseaux sociaux yi la muy gis ak di ko dégg mm. vraiment yëpp du loo xam ne ni daa dëppook lañ war a yari nit mm. kon daal yaakaar naa ne responsabilité bi yaatu na état am na ci responsabilité mm. ndax am na ci lool moom moo ko man moo mën mbedd mi ak ak ak ak télé yi ak rajo yooyu am na ci yoo xam buñ ko ci tegoon mm. wax dëgg yàlla du du demee noonu am yoo xam day wàcc ba ci sëriñ si mm. wàcc ba ci waajur yi mm. wàcc ba ci euh, so maanaam euh, mbedd ñëpp rek kenn ku ne daal am nga ci responsabilité boo xam ne soo ko ci joué woon du demee nii mu demee mm-hmm. waaye daanaka responsabilité partagée la kenn ku ne am na loo ca am am na ñuy góorgóorlu ba tey di yare am na ñoo xam ne seen njaboot vraiment ñu ngi leen teg ci yoon ñu leen di jàngal ñu ngi leen di mooy wax dëgg dañoo bàyyeeku ci wàllum yar am ñoom daal am nañu doom ñu leen di jox ñuy lekk di naan mais la ca des bàyyiwuñ seen xel ci dara ñàkk yeewu itam ci jamono am na ñoo xam ne jamono ju yàgg ji lañ dund te léegi la yar nit jamono ju yàggee yarut léegi ci jamono ji ñu ñu toll ndax xale yi ñoo leen gën a yeewu man ay nettali benn anecdote rek am na ci xale boo xam ne dañ ko doon wax euh, bu guddee day day day day muuroo mbalaanam di wuyu téléphone bu yàgg la woon sax ci élèves yi la woon yaay ji naa ko moom daal day jàpp ne day day day kii day waxtu bu dee bu dee kii wala day gént fekk moom bu nekkee ci ginnaaw yaayam mu ngi toj dëkk bi ci <laughs> ci ci ginnaaw ci téléphone bi mhm. nag ñàkk a xam la daa nga xam ne doo xam sax fi leen di yare mhm. Mhm. Euh, Imaam mu nekk loo xam ne lu amu am solo la waaye tamit euh, lu yaatu la ci bu ñu euh, déggee ci say kàddu mu mel ni tamit donte parents yi am nañ ci pas de responsabilité waaye tamit mbedd mi ak borom xam-xam yi ak surtout ñi nga xam ne ñoo yore tele yi ak bu mel noonu waaye tamit est-ce que jàppoo ne jot jamono ji parents yi gën a yokkaat anam bi nga xam ne moom la ñu yaree ndaw ñi surtout comme ni nga ko waxee sànq lu mel ni réseaux sociaux yi nga xam ne bari na ak nga xamante ni mën nañ ne dañ ci teg loo xamante ni daanaka du leen gënal surtout lu mel ni téléphone yi nga xam ne WhatsApp yeeg yu mel noonu daanaka sànq nañ ndaw yu bëree bëri xam ne ñu mel ni man lañ est ce que jotul tamit ñi nga xam ne ñooy parents yi ñu changer méthode bi nga xam ne moom lañ doon yaree ndaw ñi. laaj bu am solo nga wax. laaj euh, yar dafa laaj ay ay ay méthode yar ndax jamono ak environnement bi nga nekk bu fekkee da nga nekk ci euh, dëkku àll yi. bokkut ak nga nekk ci dëkki taax yi. lan laaj la la yar laaj ci dëkku àll bokkut ak la yar la la yar laaj boo nekkee ci dëkku taax. man li ma gis ne méthode bi nga xam ne moo kii mooy nit xale yi nga yee leen xam nga bu njëkk yar moom ab yar rek bañ nañ sax yar rek lañ ko tuddee te loolu tam erreur la. Mm-hmm. yar nga xam ne jàpp ne dañuy teg yar bi rek boo defee dara mu dóor. Mm-hmm. nit loolu noteel la mm-hmm. sëriñ Saliou mu mën a yar ma dara an wax ne xale dangeen di fexe ba bu ba muy ragal ba muy jomb te du ragal jomb mais da ngay fexe ba xale bi ci boppam di jomb mais da ngay fexe ba xam nga bu njëkk itam maam yi dañ yare. dangay dégg ñu naan as gor du wax lu du dëgg as gor du wor ba nit ki yëg ne benn ginnaaw bu ñu ko nee yow sa maam sa maam sa maam ba mu yëg ne moom maamam kat ndekete ku baax la woon ku teg woon ci yoon la ku nàngam ku nàngam yow nga jëpp ne nga jàpp ne moo la mooy sa maam ñu koy tagg ba jëm na sa maam de mës naa def loo xam ne mas naa bañ a wax lu dëgg tax na mu sacrifice mu def ay sacrifice xam nga loolu bu ñu la ko waxee ba nga ba yëg sa bopp mm. vraiment loolu da xam ne yow waroo wax lu dëgg waroo wax naka su dul bu defee yooyu itam daa léegi nag ci wàllum jamono ju ñu toll jàpp naa ne yeete lu am solo léegi ci yar mooy xale bi nga wax ak moom mooy jàpp ne ki ngay communiquer euh, sa nawle la bañ koo jàpp rek ne bu xamul dara la moom nga koo wax ne ko euh, sa Abdou sëñ Abdou man nga ko jox cër ba mu xam ne waaye sëñ abdu sa sa doom la de waaye yow lu la xiir ci lii dégg nga mu jooy nga ne ko bul jooy waaye nangam nangam ak wax daal xam nga dàq xelam. xale yi léegi dañuy wax ak ñoom ci xel mais dootoo ñëw rek dool dóor wala nga gëdd ko wala nga saaga ko waaw wax dëgg yàlla boo booy teree xale saaga ba noppi boo ko yaat ne ko di ko saaga kooku xam nga mënoo ko bàyyiloo saaga boo ko nee bul wax lu dul dëgg te boo ne defal nàngam ma defal la nàngam mu def ko ba noppi nga nax ko kooku mënatoo ko yaat ci côté boobu noonu waaw loolu daal euh, yaakaar naa ne méthode yar moom lu mat a changé la changé la ci gàttal rek mooy dañoo wax ne boo boo yor ak jur benn yat mën na leen a yar mais sooy yar ay doomi aadama nag kenn ku nekk ak ab yaram mooy nit ku ne dafa am lu ñu koy yare loolu nag faw nga am lu ñu tuddee euh, doon ab psychologue jàng euh, nit ba xam nit ba kenn ku ne nga xam nan ngay def ak moom ba nax ko ba yar ko jërëjëf euh, imam mu nekk lu ama am solo waaye tamit dañoo nemmeeku jamono ji boo xoolee bërëb jàng jàngukaay yi mën nañ ne jamono ji ñu toll boo xoolee mi ngi gën a avancé que bu njëkk ndax comme lu mel ni internat yi ak yu bëree bëri mën nañ amul woon bu njëkk tamit est-ce que jotul tamit comme ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi nekk ci daara yi tamit gën a jàppale waajur yi ci yar bi lu am solo nga wax ndax xam nga man am naa doom mënuma koo yar ma jël ko yóbbu mm. ma jël ko yóbbu ko ci école wala ma jël ko yóbbu ko ci daara wala internat kooku dama jàpp ne man mënumaa yar ndax lim laaj mënuma ko ma yóbbu ko ci foo xam ne barabu yarukaay la ñooñu nag ñoo nañ xam ne responsabilité bu gën a mag mi seen kaw parce que man bu ma bàyyi sama doom mënul ma ko yaral sama bopp ma jël ko yóbbu ko ci koo xam ne jàpp naa ne mën na koo yar kooku wax dëgg yàlla war na ma caatane mm-hmm. mais malheureusement da jël sa doom yóbbu ko foo xam ne da jàpp ne wax dëgg yàlla mën na faa jële sax comportement yoo xam ne yow wax dëgg yàlla bu nekkoon fii sax du ko am mm-hmm. loolu nag nit war naa yëg responsable na affaire bi du affaire xaalis bu dee internat joxe xaalis ñu jox la so déedéet responsabilité la boo xam ne yàlla dana ko laaj parce que man mi yoroon sama doom mënuma ko yar ma jëm di jël sama xaalis di ko jox mënoon ko dundalal sama bopp di ko jox wax dëgg yàlla mënuma laa fay sax mais nag war ngaa xam ne it li ma la jox responsabilité la boo xam ne man maa ko war na yar mënuma ko wala mënewuma ko ni nga ko mënee ma jox la ko mm. war nga caa def loo man kenn ku niyee wala ngay ignorer liñ ci def ndax bari na ñoo xam ne ña ngay yar ña ngay jàngale ña ngay jàngale alxuraan allah mm. mais nag am na ci ñoo xam ne quand même euh, li ñuy gis ci ci ci ci ci ci jamono daal xaw naa doy waar mm. xaw naa doy waar ba nga xam ne euh, kenn mënta wax lépp sax waaw ba léegi rek imaam ñu gis ne dañoo toll jamono joo xam ne mën nañ ne sànq gi bëri na ndaw yu bëri réer nañ ndaw yu bëri xamatuñu fan lañ jëm est-ce que jàppoo na loolu tamit mën naa gën a yokk maanaam sabab bi nga xamante ni tax jamono ju yàqu yi ak yàqu-yàqu yi nga xam ne nemmeeku nañ ci est-ce que loolu mënu koo sabab waaw xam nga xale yi day mel dañ xale bi day mel ni dañ ko waxul dara xale bi moom day ba mu demee ba kii rek dañ koy bàyyi ak boppam dañuy jaaxle waaru xamuñ fu ñu jëm seeni waajur am na lu leen naqari seen waajur te mënuñ leen koo wax da gis xale mu def loo xam surtout lu ñu tuddee adolescence xale bi fi mu amee ay 15 ans yooyu jëm kaw foofu nit dana fi dund loo xam ne yàqute foofu lay amee daanaka parce que day tàmbale xam moroomam tàmbali di am lu muy bañ tàmbali jàpp ne moom mag la xam nga commencement bi day doon xale yow nga jàppe ko xale mu jàppe boppam xale mu jekki-jekki moom jàpp ne mag la yow nga jàppe ko xale ba tey mm. di di di am noo jëflante moom ci jëflante boo xam ne moom vraiment gisul ne noonu la war a demee yàlla bu waajuree di xuloo di jàppante seen biir di def ay yëf muy am lu koy naqari ci ci ñoom ak di ko di ko di ko jaay doole di ko def yëf yooyu lu mën a mën a lu mën a indi ay problème la am bari na ñoo xam ne ñu ngi génn gàddaay dem seen yoon fekk na mënatuñoo dund ci kër gi te it bañkat lañ ndax nit itam da xam ne sa doom ji sa nawle la li nekk ci yow ba ngay bañ di la naqari nga xam ne ku la ko defoon nga jaay ko sa bakkan jàppal ne sa doom ji nga yor doonte xale la mm-hmm. looloo nekk ci moom mm-hmm. kooku nag réeri xale mm-hmm. dafa am ñoom dañoo réeri xale sëñ Saliou daana wax ne booy yar xale dangay mel ni kuy wax ak sa morom booy wax ak moom ni kuy wax ak sa morom jàppal loolu mais ñàkk nawlante gi dafay am solo bu defee loolu tam day tax xale yi ñoom tam dañuy jaaxle léegi nag buñ dajeek uh, benn sàmbaaboo yi boo xam ne ñoom xam na nafsiya xale bi xam na psychologiquement xale du koy téye mooy bandi yu mag yi rek boo ñëwee taxaw naa nga booy yow yow yow kii nga daal yow nangam nga yow guerrier nga ah yow nangam yow nangam après wax jooju rek ni moo koy téye xam nga yow waroo nekk lii nangam nangam nangam nangam mu daal di commencé dugg foofu yàlla bu mu fa am xaalis yàlla bu mu fa am ndax considération bi koy ñooñu jox te amu ko seen kër mooy tax mu gàddaay dem foo xam danañ ko jox considération mm. dana dana am liberté itam xale yi des na ko jox tuuti liberté boo xam day limité dégg nga waaye nag téye xale rek nag amul kii naa nga kooku bu fi teeloo rek dafay indi yeneen yu yoo xam ne kenn du xam fa mu yem. nga xam naa foofu la ñuy jaaree dikk ci fi nga xam ne moo si ñëw dernière question imam Assane en tant que imam en tant que borom xam-xam tey lan ngay ñaax askan wi ngir ñu gën ko góorgóorlu ci defaraat jikko yi waaye tamit lan ngay ñaax sa mbokk imam yi ngir ñu gën a jàppale doomu aadama yi ci yar bi. waaw kay jërëjëf am naa li may jàllale ci euh, parents yi. Mhm. nañ doom xéewalu suñu borom la te am na ñu ko joxut ko ci yàlla jox ni nga ko war a dundalee noonu nga ko war a yare di ñaax sama mbokku jàngalekat yi ndax man jàngalekat daanaka laa gën a tànn jàngalekat nit lu mu yorul mënu koo joxe jàngalekat dangay ngay defar sa bopp man bari na lu ma daan def loo xam ne euh, doonte araamut mm. hmm? dara nekku ci waaye bi ma doonee jàngalekat nit ñi di ma xool mm. vraiment maa ngi xoolaat sama bopp di bu ma waree def dara xool ba xam ne xale yi suñ ko gisee nuñ koy nuñ koy gisee. lan la ñuy réagir yaa yaraat sama bopp daal ci côté boobu noonu. Mm-hmm. ku ne yaa yar sa bopp mag yaa yar sa bopp. Mm-hmm. boo doonee royukaay ci ay nit néew nañoo ak bari nañu dangay xam sa bopp waaye xam nga mel doon royukaay nit ñi di la xool te di gis ci loo xam ne du noonu da nga influence ñu bare influence ñu baree baree bare yoo xam ne. Mm-hmm. bu ñu yàqoo sa responsabilité doo ca génn. bu defee loolu la ñi nga xam ne ñoo nekk ci jàkk ñu xam ne ñoom li ñu yor du pal responsabilité la mm-hmm. booy wax ak nit ñi da nga leen di wax loo xam ne gis nga ne lu leen jariñ la jariñ leen jariñ seen njaboot mm-hmm. yow askan wi da nga am responsabilité gindi leen yee leen ba ñu tegee ci yoon mm-hmm. loolu moo war a doon lu eh, mu tuddati objectif waaye eh, ay ay yooyu du ay baat rek yoo xam ne dañ naan imaam diw nga koy nga yor ko mbubb sol ko mbubb sol ko kaala di dox ak moom jàpp naa responsabilité la bu diis sax ndax su ndax masalan lu ma lay wax rek yenn saa yi dama da ngay tiit mhm. yéeg ci kaw minbar tiim ay nit di wax ñëpp na ceel di la xool nga jàpp ne loolu nga koy tiitaroo loolu ku mhm. ku mhm. loo xam ne war ngaa yëg ne yow war ngaa tiit est-ce que ndax lii nga yor ba di ko wax yàlla da la koo jox terale la ko ngir nga nga teg leen ci yoon am ñu la gën fuuf am nañu la gën a baax te ñu ngi toog ci sàpp bi kon war ngaa wàcce am noo wàcce sa bopp ba mën a bañ nangu kàddu yi nga mën leen a teg ci yoon ndànk-ndànk beneen bi itam lu baax baax na dëgg-dëgg la waaye dëgg dañ koy joxe progressivement ndànk-ndànk ñoo xam dañuy ñëw rek dóor rek muy daal nit ñi itam moom moo leen jëndoo leen mm-hmm. yonent bi alayhi salaatu salaam nee nañ ko rek fàttali rek da ngaa fàttali rek la la yàlla sant mm-hmm. kon nag def ndànk ci sagesse ci xekma ba nit ñi nangu li ngay wax mm-hmm. bu la nit ñi nangoo sax ci lañ dinañ nangu li ngay wax ngay fexe ba yow ñu nangu la bu ñu la nangoo rek loo wax ñu ñu nangu ko mm-hmm. xam naa daal loolu bu ñu ko defee yaakaar naa ne mm-hmm. euh, yaakaar yar bi dana dana a dana a kii mm-hmm. fexe itam kiy jàngale ñu naw la ab élève dalay naw ñee la fan la mooy tax dootuñu wuti beneen beneen royukaay da ngay fexe ba xale yi ci seen bopp def la royukaay naw la te it nga jàkk yow bu defee suñ ko defee rek duñ wuti yeneen royukaay waaye gis nga xale yi ay royukaay koo ne koy roy keneen lay wax loolu nag ñun am nañ ci problème am nañ ci responsabilité yi tam waaw xam naa daal. jërëjëf euh, Imam Assane ñi ngi koy euh, jaajëfal bu baax di ko sant bu baax di ko gërëm waaye tamit di amaat mbégte ak kontaante xam naa tey nekkul suñu premier plateau ñun ak moom ndax jotoon nañ ko séq ci suñu biir kër gi di 24 actu euh, tey nag comme nañ ko leen ko waxoon rek suñu bopp jotaay bi di yàqu-yàqu jikko yi ak tolluwaay bi moo nekkoon thème bi xam naa Imam Assane faram-fàcce na ci lu bëree bëree bëree bëri waaye nag li olof di faral di wax ne bu yoon jeexul waaxu sul di jeex xam naa dinañ ko gën a yaatalaat incha allahu rabbi te képp koo xam ne dégg nga ay kàddoom rek di nga ci mën a foree lu baree baree baree waaye tamit nit ñi di gën a fàttaliku waate aaya suñu borom bi di almaala wal banuun ziinata xayaatu dunya ndax jàpp naa ne nit ñi dafa am ñu bëri ñoo xamante ne dañoo jël doom bëgg koo def comme loo xamante ni li imam wax sànq olof di faral di wax ni euh, euh, njabootu léegi njabootu kiraana da ngay jiita jiita pa topp euh, ñi nga xam yi ñooy part de responsabilité bi kon nag war nañ cee gën a a jàpp ci parents yi waaye imam bi war nañ cee gën a ñu ko waxee état bi jàpp ci ñi nga xam ne ñoo yor télé yi di si teg yenn émission yi nga xam ne mën nañ ne day yàq xale xale yi tamit ci ñu gën cee jàpp ndax comme que toll nañ jamono joo xamante ni euh, tubaab bi sànq nañu ba lu mel ni réseaux sociaux yeeg whatsapp yeeg comme ni ñu ko waxee woon sànq ñu bëri ñu ngi waxee sànq mooy ñi nga xamante ne tey jii am nga am sa élève di ko jàngal au lieu que mu roy la wala au lieu que mu roy nit ñu baax ña mais dafay xool ay waykat wala ay fecckat ak ne bokk na la kon nag xam naa suñu kàddu di leen jaajëfal waaye tamit di jaajël jaajëfal ki nga xam ne mooy suñu caméraman di Moudou Diouf ñu ngi koy jaajëfal ndax mën naa ne bu image bi leeree ba ngeen mën ñoo gis rek euh, ci moom la ñu ngi koy jaajëfal bu baax waaye tamit di jaajëfal képp koo xam ne rek mi ngi suivre euh, site internet bi di 24 actu di leen jox dig daje ci beneen émission gëstu diina ji ak beneen invité wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alhamdulillahi alkarim alhamdulillahi alkarimi silminan